asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum wa bitim réew rawatina yeen yi nga xamne ni yeen safo wa elvision media tay na sister Eva dafa ñëwaat di ande yeen fi nga xamne ne moy quartier Moussa Sow seen émission bi nga xamne ne moy lima li bëgg doon dama daal def ni xol kenn fi ni ci euh, daal koy dekk sama micro laaj ko lan la bëgg a doon ay ca cameraman ani ba Zagadat. Apa nana dans la gare. Time, time, body, time, time. topp len ma gaaw daa mel ni gis naa fi kenn daal da ngeen daal di ñëw ma laajte la la bëgg a doon asalaamaaleykum sëñ bi. salaam. na nga def. sant Cheikh Sadd ngi am jàmm bu baax. Ah, ñu ngi am jàmm ziar bu baax. de dañ la bëggoon a dara suñu émission li ma a doon. mais li ma a doon xanaa da ngeen a sàcc da ma tricher quoi da ngeen da sama bopp quoi. ah non Badou. nu mu fa demee noonu. non parce que dafa mu bëgg doon. daa loo bëgg doon. yow mii nag yaa neex a waxal yow mii laa. gën man am envie toog a yow laa doon wër. Ah, waaw kon neex na. mais neex na mais fan lañ mën a. daaj fii xam nga def. waaw ah. ma dugg ci biir. waaw ah, génn ay chaise. bu mhm. ko defee ñu mën a toog jàkkaarloo pello. ak a dégg. def filaale. yow garaay yaay kan yow. dem non maa jàkk star taalibe Cheikh na Cheikh Saad. ah star bu may dégg. waaw ki toj tali karo yëngal jàmm gën si Kamba maa ngi Eh, loolu rëy na de damay bàyyi jaag mu daal di dugg génne ñaari seen ñu daal di daaj. pelloo man ak moom dama dox si woon rek jàmm. dëgg la ndax si coob lañ ma xam ne may wër daje ku may wër ñu daje xaaral ma ñëw ñu jàkkaarloo. neex na dama taatu garab gi léegi léegi. et mes caméramans topp leen ma gaaw tey sama émission du mën a yomb parce que ki ma taseel la jeune artiste boo xam ne ne xaw naa ko xàmme ma daal di Aïcha kon ni malen ko don waxe rek sama émission li ma bëgg a fekk na ko doj leg dama ko daal di dégg sama micro laaj ko moom mooy kan exactement su ko defee ñi nga xam ñoy ñoo ñu mën ko xam ma do ka laaj lan la bëgg a señ sëñ bi man sante yalla ak yonent bi ak Cheikh cheikh Saad sama sang bi yow la kat exactement ndax bu may ñew sang dag ne ma xawma nan star non man la jak Star jak Star taalibe Cheikh na cheikh Saad Jack Star talibé Cheikh Saad bu noonu la ah borom saalixiina borom Saalixina borom Nimzaat waaw moom waaw waaw. léegi man Diack dama dama la bëggoon a laaj yow lan nga bëgg a doon. non ma li ma bëgg doon jarul laajte parce que xanaa wax waxaat du bëri wax xëy na bëgg mu leer si noppi yi la mais man du ma wax li ma bëgg doon parce que à travers dans à travers dans le Sénégal sax laay wax quoi après sous région après départemental xam na li jaa bëgg doon Diack moom li mu bëgg a doon mooy bon un régulateur. artiste promoteur de spectacle bon nek tamit euh, nit ko xamanteni da fay dox ci luy luy luy djubol ay doomu adama et puis luy luy luy yëkkati culture surtout fi ma nekk nii jàmm gën ci kambaaw la bëgg nek ki nga xamanteni ma fi yëngal ma fi yëkkati culture bi bon diko fi développer euh bëgg mu gëna yaatu gaay jariñu ci quoi mais lima bëgg doon mom moy euh, taalibi Cheikh na Cheikh Saad rek la bëgg doon d'après ci ma déggee ci li mu wax def naa ne moom artiste la hmm? ma daal di koy bëgg a laaj moom fan la fan la toll ci aar bi at fan la ci bëgg a egg jaag fan nga bëgg egg ci aar bi at fan nga ci tollu instant bi. non aar bi fi ma ci bëgg a egg euh, balaa ma koy wax damay nuyu sama rak El Hadj Lo sama petit frère un homme digne de vie digne de parole et puis référence la. gaa suma rak la mais sama référence la parce que dafa am lu ma waxoon. te ah, dama koy sax sàcc quoi nee na jaak na ñëpp photo balaa muy saturé wax ji jot na ndax li tax jot na mooy jamono yi ku fotowul yaakaar naa ne ay jëmmi jamono pour nga foto ak jaak du yomb mais mais mais fi ma bëgg li ma bëgg fi ma jëmale ak culture mooy dama nekk ni ko xamante ni dama dama commencé fecc bon Pikine euh, di fecc ba ci yàgg ma juge fii di def promoteur de spectacle di organiser ay manifestation yu gën a mag ci day banlieue bi nag bon après nek na fi ay orchestre yu bari liggéey ci mais pour l'instant nak dama ñëw jàmm gën ci kambaaw pour yëkëti fi culture parce que culture daf fi nelaw aussi bon nelaw gi fi nelaw ma ñu fekk ko fi mu tëdd te laaju ma ko laaju ma avem ñu ne ko pëkk pëkk mu ne ko jógal par force. jaag yow doñ ya de. non euh, non artiste nga war doj artiste boy dox ci mbedd sax ñu wax ne ki moy kan quoi même boy nelaw man tay son béton sama kër may nelaw sax da nga da ngay xamni artiste nga bett. kon aar dafa war a nekk ci deret wala nekk ci sañse ci ci waxin ci ci ci ci vie ci ci ci lépp daal maanaam sa xolal booy wax sax nit ñi nit ñi nit ñi dañu war a sentir ci chaîne ci habillement ci ci sa relation ak doomu aadama yi ba ci sa sa sa sa sa sa ki nga bëgg bu ngeen toogee dafa war a yëg ci yow bon nag aar na artiste nag dafa artiste nag dafa bëri te wuute waaw bëri na te wuute trop waaw. Diag eh, après loolu noonu yëpp man bëgg naa laaj yow est ce que am nga single. si def naa presque ñeenti single. waaw bi ma njëkk a def mi ngi tudd Jakarta. deuxième bi maa ngi ci way Alsane Mbaye le griot des VIP. troisième single bi maa ngi ci way Racine Talla directeur général RTS. quatrième single bi maa ngi ci way Aïcha Djigo sama toroode bi mi ngi tudd Càpp ci. maa ngi préparé nag mm, ci tabaski bi fil felaade sol sa xarsaani fir felaale soo saxal sànni <laughs> fël-fëlaale loolu ëpp na tamit kenn du ko wax mais dama dégg ci aar bi boo ci nekkee dafa métti ba pare at defante yeeg yooyu noonu yow noo ko gisee. non ni ma ko gisee mooy ku ñu def rek da ngaa yamul fa nga war a yam mais ku yam fi nga war a yam kenn du la def parce que bu dee da nga nekk artiste euh, bu fu ñu la doo fa dem euh, fu ñu la yëgalul doo dem. sa fulaay bopp daa doo wër di kaajee. kaaje sax naa mënta naag ndax ay artiste lañ te nit ñee ñu jox mais ni danga nga war a njëkk a am fula ak fayda gëm sa bopp euh, ci ñi ngay waxee ci ñi ngay toogal ci ñi ngay fréquenté ci li ngay dund parce que aar yombul parce que nit ñi léegi seen wax lañuy tele terelee artiste mais pas seen i jëf parce que dañuy mbubboo dañuy liggéey ci ñun léegi nag ñun ñoo war a wëlbatiku nag am fula am fayda parce que nga nekk artiste benn saaliw sol desner yor ben 50 milam ñu jënd le sur chaine baatara la nga joggé fay wër saliw top saliw saliw ba nit ñi xam saliw saliw devenu être milliardaire wàcc la fa bo ñëw kërëm du la recevoir boko wé du la jël mom mi ngi yëndu ji mi ngi séti waal yi pourtant fi ñu dëkk ni ya des stars ay stars yu mag ñi ngi yéwo ci commune yi di yéwo ci département yi mais pour la nit ñi waru ñu xam seen valeur ñun suñu bonne volonté yi suñu suñu suñu kilifa yi ñu dëkkal ah au lieu que tay ñu jël ben jaak wala benn Baba Diallo wala benn Feeling Sarr wala benn El Hadj Lo mais non dañ naan nan dem jëli beneen artiste pour mu ñëw ci biir koñam indi fa orchestre am way mais d'après man loolu ni ma ko gisee parce que da gis benn artiste boo xam ne ci koñ lay nekk euh, muy taasu yooyu na te xam nga paa yi moom dañoo bëri affaire paa yi ñoom bëgguñu genre yooyu noonu wala sa koñ nga di ci solo sol yoo xam ne ne ñoom neexu leen ba tax suñu bëggee bu euh, buñ mën a invité wala daal dañu dem wuti ko feneen yow loon noo nooy dundee loolu seen kon yaa ngi koy dund wala. non parce que man li ma bëgg a doon. dama koy doon saa su ne. mais li keneen bëgg doon na ko doon saasu su ne li ma bëgg doon dama koy doon ba bu ëllëgee samay doom doon ma ci loolu te ku doon doon doon naan doon sa baay doon sa baay ko gën. kon yow bëgg nga sa doom euh, tey boo sa doom bu màggee doon mel ni yow. non ba raw ma parce que damaa bëgg a doon. ba bo liggéey sama doon doon ma ma waral ma xëc doon lima bëgg doon moo tax ma ñu fekk ci la si émission lima bëgg doon <laughs> ah ëpp na yéena ko déggal na légui nak damay daal di koy laaj euh mom ar bi euh da yow da nga da nga yor orchestre wa dama yor groupe mi ngi tuddu bala mañ sa rythme waaw bala mañ sa rythme wa bala mañ sa rythme manam jaak artiste Cheikh na keur Cheikh sarbu man may premier artiste bu nek kër ci ci ci tarikh bi ma nek xaadir di ci dund mbalax tasu man maay premier artiste boobu ci tarixe bi ma nekk tarixe ahlu xaada man rek maa ciy dund taasu waaw ah, mais damay taasu di fecc tamit waaw dama mën a fecc pire. ëpp na ku la gis kay xam na ne moom oyof nga dëgër nga. foofu tànk noonu la oyof sax boo xamee sama si. <laughs> parce que aar bi moo toll foo xamante ni euh, il faut nga xalaat surtout koo xamante ni man tey dama bëgg a nekk koo xamante ni dama bëgg a dem à bon envers l' étranger ci génn Sénégal. dem liggéey indi suma commune parce que man ben dëkk ñoruma commune de Diamaguène Sicap Mbao fi nga xamantene fi la také jabar jabar euh, fi la ñëk défé single fi la amé lo xamantene tay vraiment franchement ci musique musuma ko ci am parce que fi ma nekk gis na sama bop ci lima bëgg doon ci commune bi lima bëgg doon fi la ko doone ci commune bi dama bëggoon nek star bu mag maa ngi ko nek ci commune de à travers ci autorité yaay doga ci li nga bëgg doon star bu mag nga bëgg doon ya ma koy doga wax waaw parce que non doon naa ko xana kay damay match mad mom bo njëkkee ci domba da ngay sentu bu mujj ba mais lepp rek ko bi la takamtu ko bi bu dé dang ko sugar non la bu dé dang ko mad mad la bon xam nga bo nekkee jamm gën ci gambaaw bo lima bëgg doon fi la ko doone parce que dama bëggoon nekk koo xamante ni damay dundal aar bi man loolu laa mës souhaité pour di dundal aar bi te fi ma nekk nii maa ngi koy dundal parce que dama ñëw fekk ñi fi nekkoon war koo dundal kenn ku ci ne naa ngi faaw wane ni man dëkkuma fi man ma ñëw ci commune bi dëkkuma fi juddoo ma fi yarawuma fi mais tey bu ñu doon mayee tey euh, passeport wala ñu fiy joxe ay këyit kenn du ma ci jëg parce que jabar fi ni ma am fi ay doom kon bu ñu doon Europe dama fi am nationalité mais c'est pour cela bi mu ñëwee dama ñëw ci commune bi fekk li fi nelaw ma yee ko nit ñaa ngi commencé dund ay 8 mars jàmm si kawam musu ko dund El Vision xam na li ma wax man maa tax ñu koy commencé dund 1er janvier Elvision mi ngi koy dund man maa fii dugal star yi gën a mag li ñu bëgg doon ma dama koy indi fii pour xale yi roy ci doon ko parce que tey indi naa fi ku ne Soleil Levant Alsane Mbaye Demba Guissé Sori Ba artiste bu ne indi naa ko fii parce que ñooñu li ñu bëgg doon dama bëgg a fekk xale yi fii bëgg koo doon te di leen séen ci télé indi leen ko fii ñu mën leen jàkkaarloo pour bëgg doon li ñu doon ñu doon loolu moo tax ma li ma bëgg doon fii laa ko doon ba tax na tey instant bi doon naa ko ah rafet na rafet na ndax dëkk ko euh, màggee woo fi ñëw dëkk fi def fi lool noonu. loo xam ne ne kenn def ko fi ah loolu doy na waar euh, rafet na daal laa ko mën a waxee. Hmm. léegi nag damay damay daal di tàggatoog ak yow daal di dem ba beneen yoon. xam naa beneen yoon dinaa ñëwaat gën laa dalal sama émission li ma bëgg a doon ndax yow mii bëgg naa ñuy peel loo xam nga dangaa neex a peel lool. léegi nag li may tëjee mooy di gërëm sama rak mais man balaa ngaa tëj dama bëggoon nga ñamal ma tuuti loo xam ne ne suñ euh, internet yi buñ ko gisee dinañ xam ne ne kii njaag mi mm. waaw mu ngi ci mu ngi ci yoon bi su ko defee le neuf dina gën a xumbuta daga xam nga dama am lu may préparé mm. benn single bu bees mi ngi tudd Kumba Mbaraan Kumba Mbaraan waaw <laughs> ak sari waaw mm. euh, Kumba Mbaraan euh, dañuy wax naan Kumba Mbaraan la mm-hmm. dama ci def lutte contre les adultères parce que Sénégal dafa yaaxu ndax dafa am ñoo xamante ni seen jëkkër day tukki bàyyi leen fi ñu nekk di am jëkkër am far. Euh, am ñoo xamante ni dañuy am ñaari jëkkër am ko Europe am ko Sénégal man ma ni moytul ma jabar ji bon tëyees day saaga jëkkër xeelu njëkkee tàccu goro dompa doomu jille teg ci am jëkkër amu far. moytul ma soxna si jël ki soxna si ci kër gi jël surga bi ci kër gi suukar baraada bi roose tool yi moom def ko ruu secours jabar ju bënta yees day saaga jëkkër xeelu njëkkee tàccu goro doom pat doomu jillee teg ci am jëkkër amu far xale yi saytuñu nee leen ma jaag nu ñuy sayee eh, kon jaag ni ñuy sayee xam nga nu ñuy sayee ah. ey tàccu taaru ak taatu teg ci goowe saaf ey jëf ko ci ànd bi ngay sëqat ba jëlee ci cancer jigéen ju bon dem na noonu xoolal boo demee mu ñëw jël keneen teg ku sumi daalam lay defal ko lu mu daawul defal xoolal li may yem ci jigéen mooy bu jëkkër ja faatoo keneen ka fay ñëw da koy defal lu mu defalul woon ka fi jógee xoolal dàq xale yi dóor gone yi tëral leen fee tëral seen bàyyi jiit le xoolal tëraaleeg moom lalal ko sër bu weex tanaan ko papa yaa fi ne ey ka faatu kat defu moon da damaa fàtte woon Eva loolu rëy na de <laughs> maa ngi koy doog a dégg boobu neex na le neuf moom macha allah dama bëgg yéen ñëpp ngeen daal di def ñëw. ok dama lay daal di bàyyi nga tàggoo. Euh, euh, Eva ma lay gërëm di la sant di la ñaanal yàlla tamit aussi fi nga teg sa tànk foofu la may ñaanal tamit waa xale yi nga xamante ni vraiment ñoom. Euh, Fadel ah Fadel talibé moom li tax ma gën ko bëgg mooy xam nga ma papa Cheikh Nasser Sadou Fadel la tudd Cheikh Mohamed Fadel moo leen tuddee papa Cheikh Nasser Sadou kon dafa war a neex parce que maam Saliou fu ne ah Serigne Fallou nefa fa. yaa ngi dégg Mame Balla Mbacke ne fa ah, ah, aw mi nga xamante moom lañ njëkk a sàkk doomu aadama yi ne fi. Ah, waaw alaaji ku demul màkk tamit kenn du la woy alaaji mu doon jiite <laughs> naa ko ne xam na ne Seyna bu la mhm. kon maanaam mbir mi am na solo mais gëm leen ko te jàpp élage ma leen di gërëm di gërëm jàmm gën si kàmbaaw yëpp commençant par notre maire les députés les honorables députés les présidents ASC moom maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp gërëm gu amul ab di invité ñëpp nag le 9 août may def nag génn drapeau commune bi di ko yóbbu euh, jet café tuddee ko Zeyna El Hadj Fadiba euh, Salif sama rakk yaa wala yëkkati commune bi yóbbu ko Eva ci invité <laughs> ah. kon waaw ñu sant yàlla may gërëm Cheikh na Cheikh Saad bu di gërëm kulli Chérif nag maa ngi gërëm ahlu bayt rasul yëpp <laughs> Chérif nag yow bëri nga ñu ngay gërëm talo dama lay dagg de non non mais Chérif yi mënu ma leen ñàkk bañ a gërëm parce que nag ñooñu nag ñoom ñoom Salif sax xam na ni eh, at mu jot mën di fi ay 13 Chérif 14 ba kon nag fu mënu ma leen ñàkk gërëm xanaa dama leen di boole ahlu bayt rasul rek man dinaa la xamal benn affaire eh, jël bi ngeen ma jël nii nii nii waaw nañ dem ba déwén bi ngeen koy jëlaat le 20 <laughs> le 20 euh, juillet day fekk tey ñu naan Eva dem na ñëwaat <laughs> amiin waay déggal loolu moom ah. wax dégg naa ñëpp franchement maa ngi dégg ñëpp ñoo gën a kontaan ci yow parce que bu la neexoon ñu dékk la suñu micro nga bañ tamit yaa am nga ci plein waa léegi nag damay daal di euh, couper nag ba beneen yoon et eh, du ma fàtte de lim taasu sànq dégg ngeen ko bu baax defe naa ne jéeg bu ci réglé wul woon rek boo ko déggee di nga mujjee réglé le neuf la leen xaar nag incha allah ca événement bu rëy boobu noonu duñ ko manqué benn yoon fan